nga am 60 man ma am 40 wala ñu am 50 yo nga am qui mais c'est pas là c'est trop franchement mot à la ana ñu signé contrat boobu faut ñu xoolaat ko il faut que ñu dem andi les experts pétroliers les juristes en en droit pétrole tout ça ñu andi leen ñu ñëw joxe sen xalaat joxe sen xam-xam que ces contrats là ñu renégocier waat ces contrats là ba mu né cocc. ba sénégalais mën cee gis seen bopp point. mais loolu xanaa dañu war ba bàyyi ba exploitation bi commencé. Euh, dox normalement non ba tey weesuul mën nañ ko renégocier at weesuul experts yi ñoo ko wax weesuul experts yi ñoo ko wax ba léegi bay woyu mbuus ba léegi c'est pas trop mm-hmm. mën nañ ko renégocier waat. Mm-hmm. experts pétroliers ñoo ko wax wala les juristes en droit pétrolier ñoom ñoo ko wax. Mm-hmm.

démb gis nga ko muy euh, nekk vidéo bu viral euh, mu nekk benn agent boo xam se ne moo doon liggéey fële ca ICS euh, benn entreprise ay chinois yu tudd indien yu tudd diwaan ñoom ñoo doon maltraité benn chauffeur camion d'après les diir nag chauffeur camion bi maanaam dafa ñëw présenté wu ne wax ne ça veut que du moom la ñu waroon a mise à pied maanaam dañu juum après mu jël dossier yóbbu ko inspection euh, du travail ñu ne ko delluwaatal nga jël euh, sa li nga xam si mooy sa fonction nee bi mu delluwaatee liggéeyee ñu gis ne dañoo dagg salaire am léegi après bi mu ñëwee di récupérer li nga xam ne moo di salaire am nag ñu jox ko benn fiche pour nga xam se ne war na ko mën a signé moom nag moom bañ ne du ko signé euh, ndax xamul ban motif moo tax ñu dagg li nga xam ne moo di salaire am et tout euh, bañ commencé quoi ba ñaari chinois yu noonu maltraité ko fa ak yeneen ñaari mu ak yeneen ay mbokki sénégalais yeneen ñaar ñoo ñoo jàppale bañ defoon ko euh, li nga xam bañ loroon ko étouffé sax comme niñ fi defoon ay jamono jamono George Floyd noonu lañ ko fi defee woon mu jur fi ampleur ba gendarmerie mu mujjee def descente ca ca lié ba ñi nga xam seen ñoo moomoon li nga xam ne moo di entreprise boobu noonu ñu mujj leen a def garde à vue. alors Pape Mor xam nga le malheur du sénégalais c'est moromam sénégalais moo ko teg loolu chaque jour ma wax la ko sénégalais dafa iñaan dafa bon surtout surtout laa wax bu amee compagnie étranger bu ñëw implanté wu au Sénégal compagnie boobu jël ko comme directeur bo xamantene wala mom mo wara a recruter wala mom mo wara a euh, euh, comment dirais-je euh, superviser moromam sénégalais du len yeureum ben yon au contraire mom moy dem ci tubaab bi parce que tubaab bi ñom buñ lay lay lo dañ lay fay sa ak wala chinois ñenen ñenen mais c'est les c'est les sénégalais ñoñu ñom ñoy dem ci tubaab bi ne ko non liñ ko fay ci salaire dafa bëri wàññi ko Sénégal fi kenn du fay loolu ñom ñoy dem ci chinois yi naar yi ak ñenen ak ñenen c'est c'est sénégalais la wax leen non non bu leen fay salaire bobu fay leen ni parce que Sénégal fi kenn du fay salaire bu mel non pour wax la sénégalais yi jikkoom jikko sénégalais bi dafa bon bon ba à 1 degré incommensurable c'est-à-dire que mënoo ko mesurer sénégalais mo mel non heureusement man bima yégué nouvelle bi dama don laaj ndax gendarmerie teg loxo ci lañ ma rassuré ni que ñu def ñaawteef boobu gendarmerie tag teg na leen loxo les deux chinois ak le sénégalais bi doon traduire en wolof pour ñu teg ñaawteef boobu le sénégalais heureusement gendarmerie teg na leen loxo ci la ci la soulagé wu automatiquement ci laa ne alhamdulilahi rabil alamin boo gisee ma ma wax arm alhamdulilahi rabil alamin parce que loolu laa bëggoon chinois ça à dire que loolu moo feeña ah, scandale bi ngeen bi ngeen dégg démb moo feeñ mais sinon yàgg naa toroxal sénégalais fi ci mim rew en fait euh, maanaam ça ne date pas d'aujourd'hui entreprise étrangère la société de carrelage bu nekk fii ni ni nii nii côté tengue fi ni mhm. sénégalais di ci liggéey sans contrat. la société de carrelage boo xam da fay defar carreaux yi sénégalais yi ñu fay liggéey bu fekkee ñu may sétam xam nañu baax li may wax. ay sénégalais di fa liggéey ñu ngi leen di exploiter sans contrat sans rien sans couverture maladie. Ça à dire que bo un accident de travail moy manam danaka yow perte nga dañ lay quelqu'un jël kenen remplacer la c'est ça le Sénégal chinois yi di ko def indiens yi di ko def naar yi di ko def di exploiter les Sénégalais dans ce pays et le gouvernement où est le gouvernement dans tout ça où est l'État du Sénégal dans tout ça ci jamono Macky Sall laa wax ak ci jamono ablaye wat des sociétés étrangères qui ont implanté, au Sénégal d'exploiter les Sénégalais sans contrat sans couverture maladie sans dara ak dara si gagné ci sa lay xaj sans sans contrat wala bo liggéeyee ba sa contrat wara a nga de CDI un mois pour ne serait-ce que ñu bañ laa yobu pour ne serait-ce que mu bañ automatiquement CDI dañu lay dàkk un mois nga toog un mois après ñu rappeler la nga recommencer waat encore benn éternel CDD loolu moo am au Sénégal pas mort nee la scandale Bob bi ngeen dégg doo démb ci ci ci sénégalais Bob, te chinois chinois ay chinois teg ko ko hmm. ça ne date pas d'aujourd'hui yàgg na fi am le gouvernement bi euh, seetaan c'est parce que c'est le gouvernement c'est l'État du Sénégal qui n'a pas protégé mm. ses citoyens. inspection du travail mais inspection du travail lan la mën. mooy loi ne la delluwaatal ci sa bërëbu liggéeykaay jëlal kayit bi demal nga won leen kayit bi léegi bu ñu ñu passer à l'action mais l'inspection du travail mënul couvrir euh, ils n'ont pas ces agents là. inspection du travail du tribunal. du tribunal. mais quand on xam nga inspection du travail bu affaire bi demee ba ëpp leen loxo dañ len renvoyer tribunal ngeen dem tribunal est-ce que xam nga ce mm-hmm. c'est pas un tribunal. ñom dañuy une médiation entre l'agent et l'entreprise le premier rôle de l'inspection du travail dañuy dox intermédiaire médiation entre l'agent agent boo xamante ne moom mooy dund jafe et l' entreprise e eh, ses droits il a ça et ça et ça comme ay droits donc fay ko ses droits ñu commencé médiation bi léegi bu demee ba médiation bi tout mu jafe ci ñoom inspection du travail dañuy renvoyer dossier bobu yóbbu ko tribunal ne leen dem leen tribunal c'est comme ça que ça se passe au Sénégal moi tax la du travail ne peut pas couvrir tous les travailleurs ci jafé jafé ñuy dund ci seen bërëbu liggéey il faut que état lal benen stratégie buy dooleel inspection du travail jàppale ko ci liggéey bi parce que l'inspection du travail n'a pas ces agents là. en fait euh, ils n'ont pas beaucoup d'argent agents boo xamante dañuy daw fii daw fële daw fële daw fële daw fële mënuñu ko mm-hmm. parce que quasiment ils sont sur le terrain. ñom néwuna lool ngay dem ba fekk leen ci sen bureau ils sont toujours sur le terrain de régler ces arts de déjà fait ces arts de problème là c'est comme ça donc c'est à l'État du Sénégal et le gouvernement en place de faire tout pour que sénégalais sen calvaire yi l'État du Sénégal jàppale ses dignes fils jàppale ses citoyens parce que je ne peux pas concevoir un chinois ay Nars, ay ay ont implanter une société au Sénégal d'exploiter exploiter des Sénégalais. non seulement euh, exploitation amna mhm. ñu et ci ay nom de quoi est-ce que nous sommes là, na pays non amu cest que nous nous a Sénégal parce que y a un laisser-aller partout loolu la un laisser aller dans ce euh, pays. ci loolu laa bëggoon ñëw sax parce que euh, mënoo gis sénégalais ubbi benn entreprise soit euh, Inde wala. non mais yeneen dëkk ba pare en même temps di di. di ma lay wax nii di xam la fa maltraité ay indiens wala nga fay maltraité doomi dëkk ba. Pape Mor boo xoolee Sénégal fii ci lañ tàmm di gis yenn exploitation yi te chaque jour nga gis ñu di ñu koy jooytu ci yenn yenn yenn entreprise yi tamit. xaw ma ni ndax am nga sens. voyager dans ces pays ces pays ces pays qui comment dirais-je euh, pays de Canary. yi. xaw ma am sens voyager côté yooyu. mais Fofu sañoo fa en tant que Afrique noire parce que nous sommes tous les pays de la Maghreb nous sommes tous les Afrique noire sañoo en tant que euh, euh, un Africain noir nous avons implanté sa société sans une collaboration avec benn société bu nek fofu ci réew mi c'est-à-dire que da ngay am li est-ce que comprendre da ngay am un tuteur bo bëggee implanter une entreprise dans ces pays là même Mauritanie bo xamante mu ngi fi tout près demal Mauritanie nga né da nga bëgg a euh, entreprise fofu même boutique bu gëna ndaw boutique boutique la la wax boutique pour le yii nii bokoy koy Mauritanie da ngay ut un tuteur un tuteur ngeen bokk marché bi yow nga jël 50%. parce que 50% pour jël 50% wala nga jël mais wal ala kulli ali da ngay am un titeur li lay wax ni li ma xam la bu fekkee li wax ni amul nañ ma ne amul mais Sénégal ngay ñëw nga joggé bitim jaagar jaagar andi sa société au Sénégal implanté ko sans un titeur ñu ne nga commencé di def ay recrutement yamane ne nga jël ay ay xalé di len exploiter sans contrat sans couverture maladie sans dara yow xolal faale wo len ko am santé touti sa bu la dafa dafa feebar nga dag salaire am da ngay dagg salaire gi automatiquement bu feebaree bu la sa dama damaa nga ne yow faale wo ko sa ndax faju na wala fajuwul sa faale wo ko hmm. mais loolu la ne où est l'état dans tout ça. en fait euh, parce que Sénégal oui ngay gis koo xam day nekk ci entreprise.